Abdou Khader euh, probabilité dissolution à l'Assemblée nationale bien évidemment Sénégal ñëpp a ngi xaar souveraineté donc jàpp nañ ne peut-être euh, bu ñu ko dissoudre dina permettre tey ñu dem ci beneen quinze quinzième législature boo xamante ni nit ñi dinañ ko xaar bu baax a baax waaw d'accord damay euh, kontaan ci sa question bi parce que dafa am solo parce que aussi je pense que nit ñi dañu war a xam ne au mois de mars on a élu un président de la République Euh, à 54 pour cent euh, te ñoom tey parti majoritaire bi jiitee la coalition Diomaye bi nga xamante ñun on les a soutenus même bu fekkee bokkuñu ci seen coalition encore une fois le PDS a été un souteneur de la du candidat Diomaye mais pas dans la coalition Diomaye euh, tey ji amul majorité à l'Assemblée alors que ils ont un programme bu ñu war a bu ñu war a développer bu ñu war a dérouler et ce programme la dafa am ay ay lois yoo xamante ni faaw nga jàll au niveau de l'Assemblée pour nga mën ko jàllale foofu te tey bu ñu xoolee ñoom posture bi ñu nekk ci assemblée bi une vingtaine de députés la ñu am en tant que parti Pastef mm. donc avec les les alliés yi ñu am dans Yewwi certains ñi fa des peut-être mun mënuñu am majorité bi vu que aussi il y a d'autres partis yoo mën nañ leen jàppale si programme ndax état aussi dañuy wax ne wax dëgg yàlla bu fekkee l'intérêt national moo taxaw lépp mën nañ ko waxtaanee. avoir majorité à l'Assemblée ne pas avoir majorité à l'Assemblée si l'international mi ngi mi ngi prôné ci kaw kenn ku ci nekk l'esprit patriotique mën nañu waxtaan lépp ndax aussi si c'est le vote des budgets wala bokk yeneen amendement yoo xamante ni mën na permettre tey réew mi di fonctionner correctement pour que sénégalais yi gis seen bopp je pense que tey tous les députés yi nekk ci législature mën nañ ci jàpp mhm. mais nag ku wax aussi assemblée wax politique mhm. te ku ne politique aussi wax am nga say ñooñ am nga say département am nga say say say commune que tu as tes responsables de base yoo xamante ni tu veux que demain ñu nekk des députés à l'Assemblée nationale mmh. donc bu fekkee da nekk au pouvoir te nekkul ñëpp ñu am capacité nekk des ministres wala des DG tu veux que tes responsables de base soient aussi députés et c'est très normal on est en politique mais li am solo mooy ko def dans les règles de l'art en respectant toujours les chartes fondamentaux de l'État du Sénégal mmh. a le code électoral te yooyu yëpp man tey bu ñu demee ba war ci dugg dinañ ko waxtaanee te dinañ ci trouver des consensus ndax au-delà de tout règlement wala lépp lu taxaw rek je pense que consensus moom moo gëpp doole ndax tey bu fekkee ne cette dissolution et dans la constitution sénégalaise après deux ans yi nga xamante ni l'assemblée am na ko kon ça veut dire tey lépp lu ci war a topp comme élection c'est prévu déjà par la loi kon li des nag mooy waxtaane nan lañ koy defee ou dañuy respecter la constitution ou dañuy teg des forts consensus wala dañuy wàññi code électoral bi dem dans des forts yooyu yëpp je pense que les parties prenantes dinañ ci waxtaan mais fii ñu toll avec ce nouveau régime bi nga xamante ni il a tant vendu aux Sénégalais il veut dérouler un programme moi je vois pas de mal que ñu dissoudre l'Assemblée nationale je vois pas de mal parce que aussi su fekkee seen xel dalul si assemblée bi fi nekk pour mën a doxal seen programme bi ñu jaay sénégal yi moi je vois pas. mais dañu ragal DPG bi moo tax ñëwuñu. no du ragal pour man euh, DPG j'ai dit moi aussi sur le DPG. opposition bi ñoom thèse boobu la ñu joxe. non sur la DPG là le premier ministre n'a n'a pas eu raison moi je l'ai je l'ai même tweeté que que tey ak lu gëm-gëm bu mu am. Mm-hmm. ak lépp tey jii je suis d'accord sur le fait que l'opinion populaire n'est plus ce qui représente l'Assemblée nationale te yëpp xam nañ ko ci suffrage mais ba léegi aussi c'est des élus du peuple il faut qu'on les respecte mm-hmm. ça c'est le minimum parce que c'est une institution boo xamante ni vote moo la fa yóbbu nekkul ay nomination mm-hmm. kon nañ leen respecter te aussi la constitution bi nga xamante ko tant décrier que ne tey dañ ko a respecter Macky Sall ne devait pas le violer ñoom dama ne na dem def déclaration léegi si bii assemblée wala si bële assemblée la koy defee kooku c'est un autre débat mhm. je veux pas y entrer mais l'essentiel amul droit def feneen déclaration de politique générale mhm. su fekkee nekkul si biir assemblée bi su fekkee les délais c'est trois mois comme mhm. règlement intérieur de l'assemblée moo ko wax c'est pas dans la constitution léegi loolu ay waxtaan la parce pouvoir législatif aussi pouvoir la comme pouvoir la comme pouvoir su fekkee su fekkee su fekkee les de trois mois pouvoir législatif moom moo ko e bindoon. def ko dans son règlement intérieur pour que ñoom noonu la ñuy recevoir un premier ministre. Mhm. su fekkee aussi le premier ministre dafa war a dem foofu. su fekkee dafa respecter aussi ces le na ko respecter. Mhm. su fekkee mënu ko respecter mais amul droit aussi def ko feneen man loolu laay wax en dehors de l'Assemblée nationale nañ dem ci élection mhm. anticiper ki ëpp bu ñu gàj jógee ci élection après assemblée bi ñu ko installé mu dem def déclaration y a pas un problème euh, su fekkee ne moom aussi bëgg na muñ loo Sénégalais yi nga xamante tey jii conjoncture bu difficile bi. Mhm. nit ñi xamaguñ seen fan la ñu jëm. Mhm. les investisseurs ne sont euh, dañuy dañuy téye seen loxo. Mhm. réew mi xaw a nekk si benn guute parce que déclaration de politique générale c' est quelque chose qui donne une indication. par rapport orientation de ce gouvernement et de cet état. bon su fekkee mën na pression boobu mën na ko dékku. ba keroog ñuy def élection. bay def assemblée bu bees. mu mën a dékku cette pression sociale là cette conjoncture difficile. c'est risque et péril ah ci cadre boobu sànq touché naa benn moom muy wàllum souveraineté. waaw tey comme ni nga ko waxee alimentaire économique monétaire c'est des questions yoo xamante ni ñëpp ñu ngi leen ci xaar. moi je pense que yooyu yooyu yëpp tey euh, il faut ñu déglu ko mu wax. c'est ça réellement dama bëgg wax est-ce yooyu yëpp dafay retourner ñoom bi ñu nekkee mhm. ni ñu ko doon jaayee Sénégalais yi est-ce que dinañ ko maintenir. avec les réalités du pouvoir point d'interrogation kooku dinañ ci ñëw <laughs> mais nag li mu ci xam solo mooy ak li ñu ci xam ñun ñi nga xamante ne on a exercé le pouvoir. ok on a xam xam nañu ne c'est deux mondes différents. d'accord l'essentiel man li ma gëm mooy il faut être toujours un grand homme. Mhm. d'assumer les responsabilités yi la yàlla jox. Mhm. xam ne li nga doon wax si biti ak boo ñëwee taxaw ci décision yi. Mhm. gis-gis moo fay nekk léegi nag c'est à eux maintenant de voir comment affronter les Sénégalais dans ces circonstances mhm. je pense que c'est pas difficile il faut dire juste la vérité <laughs> parce que tu gouvernes pas pour des militants d'un parti politique mhm. tu gouvernes pour 18 millions de mhm. Sénégalais et c'est pas seulement tes partisans ñoom nga war def plaisir il faut essayer de travailler pour le bien de toute une communauté et là il faut nga am da da ko doon wax te jàppoon noonu la demee mais boo toogee tey pour l'intérêt de ces 18 millions la nga doon wax dootul amati benn valeur li am valeur mooy des décisions mhm. qui engendrent toute une opinion nationale et je pense que loolu la ñu war a gën a bàyyi xel waaw léegi nag damay damay damay wax xam nga Moussa balaa ñu doon commencer émission bi daf ma jaay carte gëm sa bopp <laughs> ma ne ko man bokkuma fen xam naa moo tax mu ne ma Pastef nga bokk mais léegi damay ñëw gëm sa bopp mu jeex léegi non damay leeral parce que parce que <laughs> jënduma carte gëm sa bopp jënduma carte Pastef non kii asafurlaa carte PS laay jënd wala PDS. non parce que parce que Karim léegi mu ñëw. <laughs> yow yow da nga maa yem nga naa may Pastef nga bokk yow. mais garaawul bàyyi ma ne boo leen ma négocier rek ma jënd carte kii carte gëm sa bopp. accord d' accord ñu def dernier tour de table alors euh, mhm. fi ñuy jeexalee rek comme ni nga ko waxee fu Bougane jëm. Bougane yaa fi toogal. Bougane xam fan la jëm. Mm. ci bopp réew mi. <laughs> nous avons nous avons une démarche prudente. mais Karim mi ngi ñëw attention. une démarche prudente ah ça c' est ça c' est une évidence. loolu dégg naa ko mais nag ba tey waxoo leen kañ lay ñëw. non dañu dañu am une démarche. ça c' est une évidence. une démarche claire. nous nous impatientons. gis nañ ni Sénégal. Mm. ñi fi jaaroon. wane nañ seen bopp ku nekk mos nañ la. Mhm. mais ci landerneau politique bi ki ñu mosagul mooy président Bougane. te dañ ko war a mos. te dañ ko war a mos. très bien d' accord te gis nañu aussi. li mhm. dal Sénégal ba ñëpp naan rupture. Mhm. ñi ko doon incarné di ko jaay sénégalais yi bi ñu ñëwee defuñu rupture. li ñu nekk dañu nekk dans la continuité. d' accord franc bi. gars yi waxatul lu ñu jëm te dootuñu ci wax. lu jëm ci wàllu souveraineté économique waxatuñ ci te duñ ci waxatul lu ñu jëm. Ousmane Sonko buy génn des fois xam la yan yan marque lay sol ay berluti. solul Made in Sénégal de berluti lay sol pour walla ni li ñuy jaay sénégalais yi ak la ñuy def. du benn d'accord Moussa. cest gis nga il faut que bàyyi di tract ndax sénégalais yi man parfois. Euh, jaajëf euh, la personne de Sonko ni muy transparent waaye sama kanam. jaajëf nga xam ni. temps bee ñu xooj Moussa ki tàggatoo tàggatoo man damay am problème la moo tax mënul transparent ci keneen ki ma jàkkaar loolu. d'accord <laughs> merci beaucoup. amoon naa plaisir dalal la temps bee ñu xoj yow xam naa ni deux heures de temps moo lay arrangé en tout cas merci. amoon naa plaisir dalal la nga nekk nit ku oyof. vraiment depuis 15 heures yaa ngi fii di xaar émission bi. war na ñu waxtaan donc vraiment je tenais à te remercier quand même. voilà yow <laughs> yow ñoo far xam naa léegi après daal dinaa choisir carte yi fan laa jëm acca Abdou maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ma bàyyi la nga tàggatoo gars yi ba beneen yoon te nga wax ñu Karim kañ lay ñëw nag très rapidement rek bon je pense que avant ñu tàggatoo bon Karim kañ lay ñëw loolu moom euh, euh, bu ngeen ko waree jot di ngeen ko jot ci canaux yi nga xamante ni mooy les canaux offi mhm. officiels yi nga xamante ni je pense que parti bi mu ngi ciy communiqué li ñuy wax sénégalais rek mooy ñu dalal seen xel euh, mhm. on a un bon leader on a un bon candidat aussi malheureusement ni ñu ko bëggee woon doon ci liggéey depuis pas mal d'années suñu borom dogalu ko. Mhm. ñu ànd ci ak gëm-gëm nag ça métti na vraiment. Mhm. ne serait-ce que l'espoir bi mu doon suscité pour tant de militants. Mhm. sénégalais mais surtout aussi ñi nga xamante ni bokk ñoon ci parti bi. mais di wax ne on a renouvelé notre parti on a fait beaucoup de on de structures. de fédérations ba tey ji war a defar suñu secrétaire national yooyu yëpp daal je pense ce le Sénégal pour mu mën développer il faut ñu am une très bonne politique économique. Mmh. Euh, mmh. ñu xam ne li leen du seen bëgg-bëgg. Mmh. mooy dañu am loolu issue. industriel a on a une très très très grande boo xamante ni on voulait le développer je pense yeneen émission dinañ ci waxtaan. tey jii nga xamante ni c'était un programme boo xamante waxuma la affaire ay immigration clandestine mais jeunes sénégalais yëpp dinañ mën a gis seen bopp ci réew mi. Mhm. grâce à la bonne politique industrielle bi nga xamante ne le président Karim amoon na ko pour ce pays là. Mhm. mais malgré aussi qu'on pas au pouvoir mais y a pouvoir qui est mhm. et je que aussi ñu xam ne euh, euh, ñiy def ambulant ñiy def euh, tablier yi gënulu leen. c'est juste que issue bu ñu amul la. seen niveau d'étude agul fenn et réew mi prépare aussi des des formations professionnelles yoo xamante ni mën na permettre nit ñi ñu dem am yenn qualité de métier yi pour mën a liggéey dans l' industrie. merci beaucoup. voilà. Mm-hmm. et et pour et merci beaucoup sur cette information xam nga yooy yëpp li ko waral mooy suñu état yi dañu fay si mi si seen mission. Mm-hmm. d' éducation effectivement man pas seulement amener les enfants de primaire. jusqu'à l'université mm-hmm. du loolu. moi je pense tey en Europe <laughs> à l'âge de tey à 15 ans. mën nga liggéey. effectivement parce que yow foofu di nga def choix. mooy les réformes voilà il nit ki jugee entrant sixième dem bay def BFM foofu war na def choix. Mm-hmm. même buy dugg si secondaire bi lan mooy métier préférencé bi mu bëgg continuer si ay études am su fekkee dafa war a bëggul def études supérieures moom à 15 ans dina dévier wu am une mm-hmm. bonne formation. à la matière mu dem liggéeyi loolu et je pense que foofu la ñu war a jëm mm-hmm. ndax le Sénégal c'est un ëpp la boo xamante ni dañ ko war a liggéey te liggéey bi du commerce na commerce ça c'est bien ça fait une rentabilité di tic au mais un pays pour mu développer il faut une bonne industrialisation je pense que man loolu mooy suma dernier mot di ñaan tey gouvernement bi fu nekk mu veille ci loolu mhm. ñu jël partisanerie teg ko à côté mhm. xool les compétences des di mhm. d'ici et d'ailleurs ñu jiital ko mais aussi la sagesse de gérer ce pays qui est un bon pays un pays extraordinaire Sénégalais soxorul nañu bàyyi tey chasse aux sorcières bi nous subi les conséquences. Mhm. le régime de Macky Sall a subi les conséquences parce que bi mu ko defee Karim Wade def ko Khalifa Sall topp Ousmane Sonko loolu mooy indi chute tey mu daanu kon tey ñoom aussi li mu leen wax mooy nañu def réduction des comptes c'est bien mais règlement de compte non. et je pense que loolu mooy li nga xamante ni moom laa leen di mhm. nañu fexe ba sénégalais yi mos a gérer wax xalu Sénégal ko gérer ak fu ko dugal on est d'accord. Mhm. mais su fekkee toppante rek la parce que tu es un je pas d' accord. pas des ennemis on des sénégalais te tey demante dëj demante ngénte demante màggal gàmmu je pense que nañu jéem jëmbat loolu moom ëpp solo. c'est gentil di la ziar encore une fois aussi Sénégal set yëpp di nuyu aussi le frère Moussa di wax sénégalais yi aussi lu ci dëng rek nañu jégal. Mhm. xam ne kàddu yi ay doomu aadama lañ. Mhm. je pense que yéene bi mooy waxtaan loo xamante ni réew mi na si gis njëriñ. Mhm. ñu ngi leen di sant bu baax à la prochaine. jërë ngeen jëf merci beaucoup en tout cas amoon nañu plaisir dalal leen comme ni ñu koy faral di defee saa su nekk suñu ay programme Sénégal set mention spécial à la régie Euh, donc tout à l'heure restez connecté euh, dinañu ñëwaat ci suñu ay programme ngeen mën a am li nga xamante ni moom mooy wàccaay màggal gi lépp lu ci tukkee rek Sénégal set dina leen ko toppal bu baax a baax rendez-vous à très bientôt jërë ngeen jëf